kër gi mu delloo la kër gi gën a jege àll maa ngi sa portable bi nag. waaw. maa ngi Tutun yalla. Bak tutun yalla. Thank you. Thank you.